yenn ay caaxaan la quoi des fois hmm. nag il faut que même presse bi jël la bonne information. moo tax ñu woo leen fii parce que vraiment des fois. Hmm. da ngay ma tël rek quoi. Hmm. tël dégg tël rek ñu dem loolu yëpp tey. brèvement parce que. qu' se passe qu' se passe réellement. par rapport ak euh, ñii dañuy wax duñ dox. si nga fii Sénégal fédération nationale des boulangers moo fi nekk ak regroupement de boulangers du Sénégal. tout à fait ku ko jiite mooy Badaka Sama. Hmm. su leen waxee ne kenn nag bu neexee ñu gagné la say ay élection nga génn ni man créé naa leneen tudd jàppaat même nom bi loolu day ndax sal boulanger kii hmm. ah, kii bi. loolu lañ def loolu lañ def. ki beneen ki Sénégal bi sax tudd ko sa sama fee amul solo. waaw ah, parce que ñoom ñoom ils ont bi passé nga bokk élection. sama ba premier vice président daane la nga génn nga nga ni da ngay créer yooyu. Ah, ok amul sens quoi cest à que mais que la presse soit donne la information. Hmm. ñun ñoo def conjointement avec le RBS authentique dirigé par Badaga Sama ñun ñoo ni dañuy dem grève. dans hmm. leer nag bu kaa ñun dañuy dem grève parce que aussi un état doit pouvoir comprendre il faut ngeen xam ne ñun mosuñoo wax ni dañuy yokk mburu xam nga tax on est dans un régime d'homologation ku mënul yokk bu dee yow da ma def un régime d'homologation te yow mënoo homologuer tous les autres intrants ba pare nga ne ma léegi yow le pain bi ngay jënd yow sénégalais bi tu par la TVA et tu me mets la TVA sur tous les autres produits mais on est dans ñun nag léegi dañu homologué dañu tënk kenn waxul la ñu yokk de dañ ni ñëw leen ñu toog waxtaan sagam yéen ñu homologué ñu wax ko mois de octobre ñu wax leen ko ñu xaar ba décembre kenn tontuwuñu mais ñu du ñu génn wax ni ñëw leen ñuy waxtaan fa lañ yema ah, boo xoolee suñu résolution dañ ni face au mutisme de l'État nous avons décidé mais si le mutisme de l'État décidé de nous avons décidé d'aller en grève est-ce que vous avez compris cest à que préavis alors oui oui est-ce que vous voyez si mutisme de l'État continue dañuy dem grève fa lañ fa lañ wax mais neewuñu fii lañ jëm

nga ne léegi loolu mënu am impact si mburu mi. mooy waa RBS ñoom ñoo ni yokkuñu. non dem mu laa lay bëgg a déggal bu RBS benn RBS moo am ba naka sax moo ko jiite ñeneen ñuy mbubboo yeneen RBS loolu nag waa yéen waa RBS seen bopp ñoom ils sont ils vont intenter même ils vont aller intenter même un procès par rapport à ça parce que mënuñu toog illégalement seen tour si ay ay ay yoo xam ne nekkul il faut que il faut que ñu xam ñu xam ñu xam ñu xam yenn la bonne information hmm. tey si ngoon nii ñun nag RBS authentique on pour def ñu jëm. donc il que il faut loolu leer dama bëgg ñu que. RBS FRBS moom moo fi nekk ak RBS. pour mu leer et toutes les régions du Sénégal. bu ñu ma génnelee ñoom sur les quatorze régions ñu am ci cinq cinq je dis bien xam nga par exemple dañuy wax ni deux mille par région dañu ma génneel ñoom cinq ma boulanger par région ma démissionné FNBS. ñoom bu ñu amee membre cinq boulanger par région ñu ni ko teg ko ma démissionné FNBS def leneen pour dire que là où je suis parce que fi ñu teg xam nañ ko ñun duñu faagal kenn duñu faagal état duñu faagal dara xam la ñu gëm suñu intérêt mooy sauver le secteur de la boulangerie parce que un état mënul signer un décret ñu ni ko suñu revendication principale mooy nga def l'application de ce décret bu ñu bëggee naxal seen nit ñi yaakaar ne décret bi mooy génn mburu si guddi gi euh, livraison bi non c'est pas ça le décret y a un esprit fu laay invité les les les ñu bëgg jël réew mi l'esprit du décret c'est d'abord compter les boulangers boulangers yi fi nekkoon comment faire la déclaration boulangers yooyu déclarer pour pouvoir les protéger mu protéger leen pour que dañoo gis ni boulangerie dañuy ubbeeti maanaam da ngay ñëw fii benn boulangerie taxaloo ñu ne léegi balaa ngaa ubbeeti boulangerie l'esprit laay wax il faut ñu am une autorisation pour que permettre les autres sénégalais balaa ñu investir ñoo xam lu ñu investir on porte les sénégalais pour un investissement autorisation de autorisation préalable la ñu la wax boo amee autorisation préalable boobu c'était l'esprit c'était quoi protéger la population par rapport aux incendies parce que nous sommes dans un ce que parce que aussi dañu gis ay récrimination naan non boulanger yi warul ubbi sama war waru kër dafay dafay tàngal four bi dafay tàng ñu ni kon léegi balaa ngay ubbeeti da ngay am autorisation préalable service technique dem saytu ndax yow sa miir bi ça bien construit incendie yooyu yëpp loolu mooy autorisation préalable hmm. soo ko amee ba pare nag léegi nga dem lu ñuy wax dem environnement hmm. dem nga wuti lu ñuy wax numéro établissement classé mais ñun bëgg nañu loolu donc loolu mooy le processus c'est ça l'esprit L'autre esprit qui suit, c'est la sécurité alimentaire des consommateurs ñu ni kon hygiène ak sécurité bi mooy naka la ñuy livrer mburu mi naka la koy jaayee vous voyez l'esprit ñu ni kon war nañu protéger askan bi pour que ñu kii beneen esprit mooy la traçabilité du pain ñu ni kon yow miy livrer yow mii war jël mburu mi di ko di ko yóbbu xanaa na Sénégal booy jaay war nga am réseau de commerce ak NINEA ñun la dans l'esprit yow bu dee livreur nga dans l'esprit ñun la da nga war a am lu ñuy wax agrément pour nga am agrément bi dafa simple wutal sa registre de commerce ak NENA wut contrat avec des boulangers pourquoi pour ñu am une traçabilité du pain yaa ngeen gis moment ndaw daan wax ni jël naa mburu fekk naa fi lancette fekk naa fi lii mais doo xam ban boulangerie la hmm. mais dans l'esprit la sécurité alimentaire des des boulangers des askan bi ñu ni kon war nañ def identification pour que nga xam ne tey yow boo jëlee mburu moom lekk ko de la boulangerie jusqu'à la livraison dañu xam kan moo kan kan ban boulangerie la jóg la jógee loolu mooy l'esprit mais nag dans cette scène maintenant il y a même norme di par comme waa Kaolack par exemple par rapport à la norme de pain y a de respect par rapport à la population de Kaolack ñu defaat norme bi ñu ni mburu kon nii la war a guddee mburu Kaolack dafa gàtt nii la war a mel nii la war a mel yooyu yëpp ñu def ko donc loolu voilà la la dans tout ça nag léegi ce n'est pas respectée de bout en bout quand on parle de déclaration mais boulanger ñu bëri déclaré wuñ c'est un manquement mais boulanger aussi ñu déclaré aussi c'est un manquement au niveau du ministère du commerce qui devait délivrer des des plaques pour ñu taf ko dans chaque boulanger ça n'a pas été fait pour ñu identifier compter les boulangers autorisation préalable kon am na boulangerie yoo xam dañuy jékki-jékki ubbi nii ubbi nii mm. donc ñun kuy wax ni réglementation fi nga ñuy fekk fii donc beaucoup de manquement au niveau du ministère beaucoup de manquement au niveau des boulangeries waaye yaa xëy ñu ñu toog nii léegi lii pour régler ko dañoo bëgg ñu woote te waxtaan 17 mhm. octobre ñu def conférence de presse kenn dégluñu mhm. mais le 28 décembre ñu defaat conférence de presse pour que ñu dégluñu ñu ni kon léegi dañoo bëggoon ngeen ñoo ñu toog waxtaan waxuñu benn yoon dañuy yokk mburu parce que mënuñu ko yokk parce que nous avons un régime d'homologation il faut que loolu d'abord leer si bopp nit ñi ko homologué moo ko homologué te boobu instant bu mu mhm. tey si on part en négociation on va partir sur la base de 200 francs diggante bi nag diggante bi nag loolu yëpp yokk fi après mhm. kan moo yokk levure kan moo yokk américain ah, kan moo yokk droit droit douane baax na baax na ñu ni ko léegi ñëw leen nag ñu waxtaan yan pexe ngeen di def ba mhm. yokk-yokk boobu am pour que ñeen assurer la population mhm. seen train de vie euh, monde bi dafa metti xam nañ loolu xam nañ jafe-jafe yi ñu leen ñu toog waxtaan ñu wax leen ay solution ñun dañoo ñëw pour wax état bi waa les solutions d'accord su dee mënoo def homologation bi comme continuer mais yaa xay toogal ak ñu les vrais acteurs waaye nag waaye nag gis benn ministre xaw ma de finance xaw ma de gay économie. après ñu ñëw ci xaw ma bëgg a jéggi ministre du bi. après ñu ñëw ci bëgg a. après ñu ñëw ci. gay c'est que boo ñu joxee information yëpp sama xol dafay jeex quoi da nga non non man man yow moom da man moom lii da nga ko fanaanoo dama non déedéet xamul da non man sax. maa yokk ku yokk gay nga. dafa ne man man lii man ni man man naa tëj la man amul may xool. man lii dama ko xam. baax na je sama métier la. depuis 40 ans maa ngi fi.